di leen wax ni que namoon naa leen di am mbégte loolu jàkkaarloo ak yéen ñu fas yéene sekk laaj ak tontu. waa showbiz ça dépend pour man day nekk milieu bu compliqué ci yow boo bëggee mu compliqué parce que boo ko jàppee comme liggéey rek day nekk lu normal man bi ma ñëwee showbiz aussi. euh, changé wul grande chose ci man c'est vrai que après dinañ la gën a xamee tout ça le changement lay doon mais j'ai toujours gardé les mêmes amis les mêmes fréquentations du coup ça n'a pas été trop compliqué pour moi Euh, pour mon expérience bu inoubliable bu ma ci am bu ma gëna marqué pour mon lu neex la parce que rencontre la avec une personne parce que en général dañuy naan showbiz bi kenn du defal nit dara naturellement à chaque fois surtout diganté góor ak jigen bu le góor defalee dara rek day fekk amna lu muy xaar en retour alors dama ci xam quelqu'un bo xamantene bi mooy doog commencer ci samay début la ko rencontré muy tonton Mansour Dieng bu Icon Magazine je pense que sénégalais yu bari xam nañ ko mu nekk il m'a beaucoup protégé il m'a beaucoup aidé mu m'a fi hein, comme man comme un pour man comme un papa un tonton donc il m'a beaucoup aidé dans wutal ma opportunité yu bëri yoo Masha'Allah, ne euh, macha te mësul dara ci man. Milieu oui, c'est vrai que Jordan fréquenté milieu depuis quelques mois. J'ai été Miss Kaolak en 2014. Après, m'a participé à l'élection Miss Sénégal de la même année. Euh, mu nekk milieu bu compliqué milieu boo xamante ne franchement milieu bu doy waar rek laa ko mën a woowee am na lu nekk ci biir maintenant aussi dafay dépendre ci éducation bi nga xamante ne say parents jox nañ la ko ci valeur yi nga xamante ne inclure nañ la ko man moo tax dama teel a daw génn milieu boobu quelques mois laa fa def rek ma daw génn retourner ci samay études je pense que ni mu meloon la mel ba léegi peut-être léegi la xale yi am fit pour wax ak réseaux sociaux aussi nous mu mel léegi melul avant mais li ci am tey je pense que daan na ci am démb aussi comme j'ai dit léegi la xale yi am fit pour wax les lañ gën am opportunité pour wax mais milieu mannequinat ak milieu Miss comme je l'ai dit tout à l'heure milieu bu doy la encore une fois donc damay wax xale jigéen ñi rek ñu gën a bàyyi xel parce que réussir neex na mais nga jaarale ko fu rafet aussi amul daralu ko dakh ñi ci nekk aussi ño xamantene dañuy utiliser xalé yi war nañ gën a bàyyi xel parce que ñenn ñi ay jigéen lañu wala même bu ñu nekkee ay góor euh, dinañ am doom wala ñu am des sœurs donc bu ñu xoolee ci seen i doom wala seeni i rek seen xool waru leen waru leen permettre ñuy def yenn yi. comme je l'ai dit léegi def attention parce que boo xoolee dafa nekk loo xamante ne peut-être avant amoon na loo ci mën a am boo ko gañee mais léegi dafa nekk loo xam ne pratiquement doo ci am dara donc loo xam ne doo ci am dara nag jarul nga ciy def yenn yi daal. neex na mën na nekk sa passion et tout ça mais encore une fois nañuy def attention parce que en général avant ngay yegg si ci Miss bi ñi nga xamante ne ci ñooñu ngay jaar avant ngay mën a participer ci compétition bi parfois nga daje ci ak ñoo xamante ne ñu doy waar la ñuy doon donc xale jigéen ñi encore une fois li may wax rek ku la woon yoon boo xamante ne xam nga ne du yoon bu jubbi rek jéemal moytu nga jéem a seeti leneen. ba mën naa wax. Est-ce que tu veux participer à ça? parce que après mon mariage de ma mon envie concentrer au un peu sur ma nouvelle vie de femme mariée profiter tout parce que je venais d'intégrer la 2STV Et xam de de de de stress donc je me suis dit pourquoi pas me reculer tout me concentrer concentré wu gën mon savourer mon début mariage et tout ça après il y a en état et j'ai eu une grossesse un peu compliquée Donc j'étais obligée ma daw touti dal dal di la loolu moo motax ma arrêté télé depuis lors gars yi gisatuñ ma fenn. Na ñi ngi sant Yalla ah. ñi ngi sant Yalla alhamdullilah yaakaar na jigen bu nekk lay ñaan moy am borom kër am dom parce que loolu mo nekk réalité milieu bi neex na torop mais yeb ay fiction la fondé sa famille xalé jigen yeb lañ bëgg donc ñi ngi sant Yalla bu baax ñi ngi gérer sey bi ñi ngi gérer njabot bi di ñaan rek sénégalais yi ñu yokk ñu ñaan yàlla musal ñu ci cat lafal ñu ci seytaane euh, gën ñoo boole daal gën a dëgëral ànd bi on dama naan c'est la magie de réseaux sociaux parce que ci réseaux sociaux yi lañ xamante quand ba yàlla def sëy juddu ci donc voilà sur Instagram déjà man rumeur boobu mosuma déranger parce que ci ki ñuy roy muy sallalahu alayhi wa sallam soxna moko moko moo non donc pour man loolu warul déranger en plus je suis pas plus âgée que lui peut-être euh, dama xaw pank bo ba boo ma gisee nga teg ma mak mais bo ma gisé face to face di nga xamné que mën nañ wax ni xalé la dé <laughs> ok c'est un institut de beauté déjà boo xamante ne dama ko lancer il y a quelques mois de cela.

boo ñëwee fii Galwa Beauty Institute di nga ko fi amee. nous sommes sur les deux voies Liberté 6 en face numéro 1. bi ci kaw tali bi mu nekk adresse bu neex a xam ñu nekk aussi ay professionnels de la beauté ñoo fi nekk boo leen fi amee da ngeen boo leen fi ñëwee satisfaction ngeen fiy génnee. donc damay woo tous les sénégalais à ce que ñu ñëw jàpp ci yëf yi ñëw fii def des moments de détente yoo xamante ne duñ ko regretter benn yoon euh, pour nous joindre mën nañu woo ci 77. 337 11 25 wala ñu réseaux sociaux sur Instagram Galois Beauty Institute et sur Snapchat également